coalition bi doon député du ñu dox leneen sudul lii njëriñ ci Sénégal. ndax Sénégal kese moo leen ñor parce que certainement ñeneen ñi seet si woon nañ la bëgg nañ nga ànd ak ñoom ku ci mel ni intercoalition bi nga xamante ni euh, Macky Sall ànd na ci ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di PDS muy l'intercoalition takku wàllu gis nañ tamit coalition. Euh, sàmm sa kàddu bi nga xamante ni gis nañ si les Bougane Gueye Dany Thierno Bocoum euh, Déthié Fall et autres donc amoon nga choix quand même mais nga décidé ànd ak ki nga xamante ni moom moo di euh, Thierno Alassane Sall. waaw vraiment ñii nuroo daal ñoo mën a ànd euh, waaye nag bañuñu woon intercoalition mën a am mën a ne waaye euh, waa PASTEF dañu xatal calendrier bi waxtaan yooyu war a jafe kon loolu indi na. ñu ñu ñu mujj ñu bokk ci. mais quand même entamé woon waaye li ñu jàppoon ca njëlbeen mooy. nañu jëkk taxawal coalition boo xam ne ñu nuroo ñoo cay ne ñu bokk gis-gis bokk gëm-gëm ñoo cay ne waaye nañu xam itam ne intercoalition mën na bañ a ñàkk ndax intercoalition. ñun ñoo ko indi woon en en janvier deux mille vingt deux mhm. bi ñu génnee ci local yi mhm. jàppoon ne loolu rek moo war a mën a indi dëgg dëgg dëgg majorité ba nasaxal majorité euh, majorité ci opposition ba nasaxal majorité. mais ndax di ngeen tasaaroo nii ci opposition bi ndax lu ñu mel dina nekk lu baax ci yéen ci jamono bi nga xamante ni naam euh, Pastef dafay dem ci li nga xamante ni moom moo di euh, ci bañeeram mais ñoom gis nañ ñi nga am ay alliés. lu ñu gën di dem ñu ngi am ay alliés yu nga xam ñu leen di ñu ngi leen di fekk si gis nañ Touré sama Boubacar Camara euh, fekk na leen d'ailleurs sax dégg nañ ci kàllaama Ayib Daffé mu ne contribuer na sax ci li nga xamante ni moom moo di caution kon ñoom ñoom ñi ngi gën am force parce que ñoom ñi ngi gën a ñi ngi gën nekkoon ci ci régime bi ku ci mel ni Mame Boye Diao et autres ñu décidé soutenir li nga xamante ni moom moo di Pastef ci législative yi et pendant ce temps yéen opposition bi yéen yéen a ngi dispersé am na nag intercoalition yu ànd ci yenn ci déggin sax dafa jafay comprendre est-ce que stratégie bi ngeen teg jàpp nga ni lu baax lay nekk ci yéen. bon li li ma li ma li ci jëkk a tegal mooy ba tey ñu ngi ci continuité doxalinu Macky Sall moo fi nekk ba tey njuuj ndaay dug dugg ci ñu xam ne ko intercoalition liggéey ko dafa laaj jot ñu xatal lépp ba. loolu war a. mais am na ñu nga xamante ni tamit monsieur le ministre ñoom ñu ba déggoo. ah attention mais am na am tas yoo xam ne am na coalition yoo xam ne am na ñu ci génn ñu ci génn ñu ñu bëri ndax waxtaan bi am jot amutoon. mais quand même am na ñu réalité mais ceci dit. am nañu ànd te temps bi. ceci dit benn temps la pour yéen ñëpp. waaw c'est mais non sauf pour Pastef. oui mais je veux dire fu ñenn ñi àndee. waaw bu ñu demee ba gis euh, président Macky Sall bu ànd ak PDS. waa mais ndax taxaw intercoalition takku wallu waaw mais ndax ndax bi nga xamante ni mi ngi woon Yewwi Askan bi jege woon loolu Ousmane Sonko tey mu nekk ci sàmm sa kàddu. waaw mais pourquoi pas yéen. waaw mais ku nekk ak li nga gëm am na am na loo xam ne itam euh, man de gis bugguma vaar xam nga 2022 dañu àndoon dañu nekkoon ci biir wàllu travers le CRD di oote. soppi doxalin musuñu ci génn di wax ne lii nga xam ne dund nañ ko avec le régime de Macky Sall Benno Bokk Yaakaar bu fekkee ne des nañu ci avril 2024 mars 2024 Sénégal dina yàqu ba faw waaw mën nga wax loolu ba pare bokk ci benn coalition ak ñoom tout suite da ngay jëkk taxawal coalition boo xam ne da nga ciy ànd ak ñoo xam ne yéen a bokk gis-gis. kon nu ñu war a man vaar rek laa ragal ah, am na ñu ñemee vaar. ci ah, politicien bi man vaar ñu vaar bari vaar vaar moom rek laa ragal. waaye nag euh, bu ñu toogoon bu ñu amoon jot ñoom jàppoon nañu ne dañu waral a waxtaan itam ak ñeneen ba seet ndax am na ay. Euh, circonscription ay département yoo xam ne mën nañ ci déggoo ba gën a dooleel suñu suñu suñu candidat yi mm-hmm. bon mais jot boobu ci dëgg-dëgg nag ñu ko am ngeen bokk tamit li nga xamante ni ngeen nar a bokk li nga xamante ni moo di jongante yi euh, le président lance le président Macky Sall euh, tey ji ñu commencé déjà di wax ni bu tegee tànkam ci réew mi rek mooy dinañ ko jàpp ñu dégg ko tamit ci ki nga xamante ni moo di njiital CDC Euh, di ki nga xamante ni moom moo di Fadilou Keita déjà yow lu nu mel euh, noo ko gisee jàpp nga ni lu war a mën a am la Euh, un ancien président xanaa moom dans ce cas moom dina nekk une première dans l'histoire politique du Sénégal un ancien président bi nga xamante ni dina teg tànkam ci réew rek ñu teg ko loxo mais ñoom nee ñu ci lim fi def yëpp tey jii euh, yëf yi santo euh, ne doit pas aussi tamit nee nañ bu ñu amee majorité dina ñu taxawal ab haute cour de justice bi nga xamante ni peut-être dina leen permettre ñu gën a mun a yoon gën a mun a def seen seen seen liggéeyam ci li nga xamante ni en tout cas moom lañ leen di tuumal yow lu mel noo ko gisee mu war a jor ci mu war a jaar ci haute cour de justice mm-hmm. haute cour de justice fu ñu jëlee député haute cour de justice député daf ci daf ci am wàll ana député nañu bàyyi politique politicienne ñu bàyyi di di tiitalaate di xëbalaate bu fekkee ne am na lu ñu war a toppee Macky Sall nañu instruire yëf yi commencé waaye dinañu bu ñëwee ñu tëj ko bu ñëwee ñu jàpp ko fu ñu koy jàppee fu ñu koy tëjee ci ci ci lan mais waxuma ne de deful loo xam ne waru ko woon a ah. waxuma ko waaye nañu bàyyi di jaxase politik ak justice ak ak ak non. ñu génn ci loolu. soxla mais ko jàpp président Macky Sall dina dina yombee noonu ci mais ban yoon la ñuy jaar ba mën ko jàpp c'est ça mon problème haute cour de justice moo ko mën a jàppalu ci bu fekkee ne yaa ngi ko topp ci loo xam ne jëfu président la. ana haute cour de justice ana député boo fay duggal il faut kon daal Macky war na war a mën a ñëw ci réew mi. battre campagne comme ñëpp en tant que tête de liste. évidemment. sans problème. sans <laughs> mel ni Barthélémy Diaz également éligibilité ba à un moment donné posé woon na problème am na ñu nga xamante ni saisir nañ ci conseil constitutionnel conseil bi nañ leen du yéen yéen a ma war a laaj loolu <laughs> euh, dégg nañ tamit Ayib Daffé bu ne euh, ñoom euh, non plutôt du Ayib Daffé waa si si Ayib Daffé la nee na. Euh, ci nu mu ko waxee ci nu ñu ko mën a tënkee daal seen ministre de la justice su ko neexoon mënoon a saisir le président de l' assemblée nationale euh, ñu fokkati li nga xamante ni moom moo di mandat am parce que xam nañ ni perdre na ko perdre na éligibilité bu yàgg mais defuñu ko parce que nee nañu dañoo woote rupture dañoo bëgg dem ci élection yi nga xamante ni ñëpp dañ ciy bokk mais ndax bu ñu taxee ba tey ci logique gu jub jubal jubanti ku nga xamante ni ñoom xam nañ ni warul bokk war na war a mën a bokk ba tey. waaw mais Penda ma laaj la dara Ousmane Sonko bokkul ci élection présidentielle. coowal moom Mame Mbaye Niang ca diffamation bi lañ ko jugé ñu ne perdre na li nga xamante ni moom mooy. voilà ah perte d'éligibilité. ndax diggante bi am na lu ci soppi. conseil constitutionnel nee na c'est bon ndax ñaar dama la ne te moom moo waxoon ne warul bokk ñu laaj ko mu ne du yéen yéen a war a laaj. te décision baa ngi ci moom loolu indi na ci suñu euh, programme de législature lu ni mel ñu dindi ko c'est pas possible ça yow yaa ngeeg loi électorale boo xam ne buñ la condamné ci tuuti perte nga sa éligibilité ba abadan mm-hmm. ki la dellusi ci biir di président de la république mais président de la république li mu mën lu tax doo ko may askan bi ko fal askan bi ko fal c'est l'électeur nañu bàyyi électeurs yi décider électeur sénégalais bu jógee ne dama bëgg a sàcckat toog mu votel sàcckat dama bëgg a fenkat toog mu votel fenkat bés dina ñëw mu taamu ku baax mu ne dina voter ku baax <laughs> mais mais on a il faut il faut arrêter nañu bàyyi tappale bi l'article trente neuf et quarante là de de de et trente pardon de code électoral dañ ko war a soppi dindi ko lu ça n'a pas de sens génne électeur ak éligibilité ndax boo xasee ba toog rek tu as tous les droits boo xasee ba toog ba am doole ba am li nga war a am. gaa ñëpp fàtte ne du yow yaa ma koy laaj fekk yow décidé nga ba pare <laughs> loolu naka la mën a dugg ci ci ci droit droit c'est compliqué très compliqué waaye man dama jàppoon ne c'est mën nga ndax na ñu toll foo xam ne euh, conseil constitutionnel dem na ba ne waaw dëgg la yoon mayuma ma dogal waaye Euh, pour la continuité de l'État foog ma kii yoon mayu ma ma dogal ndax booba manqué na juge mhm. mais boo sañee dem ba foofu loo xam ne li dogal nga ko ba noppi mu nekk ci ci sa biir ci sa mhm. archive mais génnee ko nga ne lii de am na kon mënuma ko ma ko bañ mhm. d'accord mais entre temps e premiers ministres ça passe kon ñu nañu nañu nañu bàyyi politique politicienne ak tappale bi nañu soppi yëf yi ba sénégalais yi gën a gën a gën a seen xel gën a nangu yenn yi. Mhm. mais mu munoo wax tey ki mënul bokk ndax condamnation Mame Mbaye affaire Mame Mbaye ëllëg mën na bokk. c'est mhm. mhm. un euh, le ministre euh, li ñu jëloon ci waxtu jeex na tàkk mais aussi tamit doo fi ñëw ba dem te duñu la laaj sa gis-gis ci li nga xamante ni euh, en tout cas moo ñeel arrestation yi nga xamante ni ñu ngi koy gis ci réew mi convocation yi également am na yu nga xamante ni ñenn li nga xamante ni moo di wàllu reddition des comptes yooyu moom dañuy bàyyi yoon doxal liggéey mais ñi nga xamante ni dañ leen doon dañ leen convoqué woon